High five. الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بركة برم طوبة العبد الخديم السلام yi mbokki taalibe yi rawatina yéen mbokk yi nga xam ne yéenay déglu rajo bii di Chic FM Mbacké moo xam yéen ñi nga xam ne yéen a koy seetaan ci Facebook bi ci Zik FM Mbacke ak yeen ñi nga xamni yeen koy déglu ci sunu fm.com no ngi leen di siyaare bu baax yeen ñëpp fu ngeen mëna a nekk tey di alxamis tollo fukki fan ci diggu tabaski ci eh, atum 1441 ci gàddaayu yonente bi alayhi salaatu wassalaam dëppoog ñaari fan ci wéru juillet 2020 suñ yi nga xam ne moom lañ baaxoo al amal ci waxtu wi di njàngalem Serigne Touba al Abdil Xadim jataay bi li tax lu indi ko mooy ñun ñi nga xam ne ñooy tuddoo Serigne Touba al Abdil Xadim xam ni Serigne Touba fii la nekkoon fii la nekkul woon te njàngalem suñ Touba du dara lu mooy lislaam suñ Touba jàngalewul lu mooy lislaam du caa génne suñ Touba daa nekk fee am njàngaleem nekk ne déedéet suñ Touba lislaam rek rek rek la doon jàngale te moo ko fi taxoon a ñëw. te moom la doon yeesal ci te loolu wax na ko fu bare bare bare bare bari ci fàttali njëkk sunu kilifa gi nga xam ni moom lañu ñu fas yéene seqal jotaay bi tey di teew di sunu sëriñ di sunu kilifa sëñ Mbàkke Abdourahman njëkk muy ñëw rek ñu fàttali tuuti ci jotaay yi nga xam ne weesu woon na jotaay bi ñu fi njëkk a def ñu ngi ci doon leeral wéetal yàlla mooy lan dëgg-dëgg ak wàccuwaay wi mu am ci lislaam ak suñ tuubaa al abdil xadim nan la ko jàngalee ak nan la ci yaree jotaay ba ca toppaat ñu leeraloon julli mooy lan dëgg-dëgg ak wàccuwaay wi mu am ci lislaam ak suñ tuubaa al abdil xadim nan la ko jàngalee ak nan la ci yare ak nan la ko fonke woon jotaay ba ca toppaat ñu leeraloon azaka mooy lan dëgg-dëgg ak wàccuwaay wi mu am ci lislaam ak euh, ab julit nan la ko war a fonke ak ku am asaka ku am alal ju asaka war génne woo ko lam la mën la la la la la cay fekk ci ay daan bu ëllëgee leeraloon nañ fii bennook julit ñi mooy lan dëgg-dëgg ak ñun julit ñi nan lañ war a nekke benn suñ tuubaa it nan la jàngalee loolu loolu lépp leeraloon nañ ko leeraloon nañ it yar mooy lan dëgg-dëgg wàccuwaay yu mu am ci lislaam ak sëriñ tuubaa al abdil xadim nan la jàngale yar ak nan la yare woon ñi ko toppoon muy jotaay yu mat a bàyyi xel li lépp li tax ñu di ko wax mooy kuy tuddoo sëñ Tuubaa wóoroo woyofal daray diine ndax siñ bi diine rek rek rek moo ko fi taxoon a ñëw ak jariñ julin ñi bu du loolu sëriñ Tuubaa wax na ne du yendu wala du fanaan ci kaw suuf muy jariñ julin ñi rek kon ku koy tuddoo war ngaa jéem a xam moom li mu nekkoon nga jéem caa nekk te mooy lislaam rek rek rek kon képp kuy tuddoo sëñ Tuubaa euh, ñu gis ko lislaamam woyof dëgg-dëgg yow yaa koy tuddoo dëgg-dëgg waaye jàppal ne euh, sëñ bi euh, nam bëgg nga mel ni mela góoni kon yii ñu wax yëpp képp kuy tuddoo sëñ Tuubaa al Abdul Xadim waroo caa doya daal dara dara dara jamono nag toll na foo xam ni ñiy wax bari na lool lool lool waaye ñiy jëf li nga xam ne mooy dëgg néew na lool lool lool lool mooy la bay mbay te doon wax naan bu lëf desut lu dul di wax ku ne di waj wajee ka wax te kenn du def ca la mu wax dara li lee xorom kon ak taalibe buy tuddoo sëñ Tuubaa war naa jéem a xam li sëñ Tuubaa nekkoon mu jéem ca nekk te mooy lislaam ju wér péng péng kon koo gis muy doyee dal julli ak ponk lislaam yi xamal na yow yaay tuddoo sëñ Tuuba waaye sëñ Tuuba deñ na ci yow ba sedd wicc wicc wicc te it sëñ Tuuba al Abdul Xadim waxoon na ne am na ñoo xam ni eh, bu ëllëgee amoon am na ñoo xam ne fii la mujj a dégg saw tur ndax la ñu nekkoon dama caa nekkutoon loolu nag lu mata mata bàyyi xel la te bu ñu gisee sëriñ bi ñi ko toppoon niñ tare woon ci jaamu yàlla kon kuy tuddoo sëñ Tuuba waroo woyofal dara dara dara dara ci xeetu jaamu yàlla yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp jaamu yàlla gum mën a doon gis nga doomam yi nga xam ni ñoom it foo leen gisee rek sa xel day nekk ci yàlla kon am murit buy tuddoo sëñ Tuubaa al Abdul Xadim eh, noonu la war a mel mooy ku ko gis rek xelam daa war a dem ci yàlla waaye di tuddoo sëñ Tuubaa yore melo woo xam ni daanaka da ngay wuyoo santam ku la woo nga ne Mbàkke mbaa nga wuyoo ñi nga xam ni moom ñoom la yaroon seexal leen muy ñi ko toppoon ngay wuyoo seen i sant te ñoom lañ santaane defoo ca dara dara dara loolu moom képp ku koy def na nga xam ni jotewoog ñooñu dara dara dara dara dara muy lu mata uh, bàyyi xel ci kuy tuddoo sëriñ bi rawatina ñun ñi nga xam ni nag ay gone lañ ndax uh, sëñ saalihu mbàkke wax na ne sëñ tuubaa boo mosaane ñëw jox ko sa doom dalay wax ne la yóbbu ko boo demee nga yar ko jàngal ko te liggéeyloo ko te loolu mooy sëñ saalihu li mu nekkoon kon loolu lu mat a mat bàyyi xel la ndax jamono toll na foo xam ne eh, ci eh, doy ci yàqu ak ci ñiy fëkkee bari na lool lool lool te ñu ci bari ci ñiy fëkkee dañoo jël mbubbum diine sol ko nga xam ne dañuy wax ni ci diine la ñuy woote waaye sa dëgg-dëgg boo lu ñutoo mbir ya mbaa nga dem ba ca biir wax dëgg yàlla ci seen boppu dong dong lañ nekk mooy loolu suñ bàcc jigal naan woote yi wuute na lool ak wuute nag du fi jóg kuy wuy ay seetlu kay wooteek la muy woote loolu lu mata mata bàyyi xel la kuy def lu yëngu mu jug luñ sos mu tàbbi ca biir doo teelu doo seetlu mbir moo dégg dem seet yi gis nga te loolu day mel ne lu xew ci jamono la gis nga ca biir mi ngi naan ñooñu ñi leen di wuyu mooy ñi leen di wuyu mooy ndaw lu amul kilifa ak waaju tey ay mbokkam bu ko defee nag loolu lu mat a mat a bàyyi xel la te képp koo xam ne sëñ Tuubaa da ko daan wax daana wax ne képp ku ci yor sa doom te yaroo ko adduna dana ko yar bu ko adduna yarut euh, bàmmeel moom kenn du fa dem di fa yóbbaale ak reewande loolu waxi sëriñ Touba Al Abdil Xadim la mooy lu mata mata mata bàyyi xel te koo xam ni noonu ko kii fi nekk te nekkal fi borom Touba Al Abdil Xadim di Seyxi Muntaqa di wax ne sëriñ bi fi ñu ko gisee ba fi ñu ko noppee gis ci boromam rek rek rek la nekk te loolu dara luy boro lu dul boromam kon ku koy tuddoo war ngaa jéem a xam. sa boroom moomu jéem a xam moom mii ngay tuddoo li mu jàngale ci nu ñuy gëmee sunu boroom ak nan la ñuy mottandikuloo bokkaale sunu borom ndax jamono toll na foo xam ne daanaka lu baree bari nit ñi ñi ngi koy def di ci tudd sëriñ bi waaye loola wax dëgg yàlla yoonu sëriñ bu mag bi nekku ci ndax képp kuy tuddoo sëñ Tuubaa al Abdul Xadim te lii ma wax nii nekkoo ca nekkoo ci diine ci wér a wér a wér a xam ne yow yaa koy tuddoo rek rek rek te la nga nekk boo ko tuubut bu ëllëgee eh, bu la ko yàlla jéggalut mën na laa Eh, yóbbu ci barab boo xam ni dala la fay dal yow rek rek rek rek yaa koy yëg te loolu lu mat a bàyyi xel la ñu fàttali yi ne ci jotaay yi weesu am na jotaay boo xam ne dalaloon nañ ci eh, ku baax ku ñu xam ñu doon leeral tomb bi Serigne Touba yi al Abdil Xadim te tomb yooyu mooy am njàngaleem ndax eh, yoon la woo xam ne da koo jëloon di ko jàngalee mu doon ay wolof yoo xam ne da tombal ñaari tomb mbaa ñett nga. Euh, man cee xam loo xam ni boo doon jàng si giirug dund mbaa at yu bari doo xam loole gis nga ba muy leeral di wane ne yàlla sa boroom waxtu woo demee ba mu wóor ni la kenn mënu koo xam kenn gënatu la koo xam kon loolu lu mata mata mata mata bàyyi xel la kon siñ masaar nga yëkkatil nu xasida tuuti ba ci incha allah تسالني اسالني Serigne Touba al Abdul Xadim ñun ñi nga xam ne ñoo koy tuddoo lépp lu mat a xam xamal nanu ko ndax euh, bind na bàyyi fi am na téere boo xam ni moom la ñuy faral di jàng fii di ko tàmbalee muy tasawu di sixaar ca tàmbali ga rek gis nga lam ca wax mooy ñun ndaw ñi la doon wax ne sunu yitte bu mu doon dara sunu bëgg-bëgg bu mu doon dara sunu buñ soxlawoo dara lu dul ak jub ak xam-xam yi nga xam ni moo am njariñ ndax jub mooy li nga xam ne moom rek rek rek mooy jariñ nit ki ci bàmmeelam te moo koy musalit bu ëllëgee te moom sëriñ bu mag bi daana wax ni képp ku ngeen dégg ñu ne sama mbokk la lam baax le rek laa bokk ak moom kon loolu lu mat a bàyyi xel la te da ko daan wax daana wax ni ku jub mucc nga ku jubagul nag muccagoo ku du jub nag du mucc ba faw faw faw faw kon loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax it kuy tuddoo sëñ Tuubaa waroo jikko yu ñaaw yi waroo cee am benn benn benn benn ku la gis rek xelam war naa dem ci sunu boroom subhanahu wa taala kuy tuddoo sëñ Tuubaa du war du tappale du wuruj du dugg ci loo xam ni eh, buñ ko ca fekkee mën na caa am gàcce gu rëy rëy moo xam fii ci adduna la moo xam yowmal qiyaam la te it gàcceeg adduna sax moom am na fu mu yem waaye gàcceeg yowmal xiyaam moom daanaka yemut fenn ndax koo xam ni bu ëllëgee eh, muccut daanaka noonu ko sëñ bi waxee rek ku dul jub mucc ba faw faw faw gis nga foofa kon lam ñu ca wax mooy ñu jub ñu ndaw ñi tey taqoo xam-xam yi nga xam ni dafa am njariñ tey jàng alquran fu ñu tollu tey moytu bépp jotaay boo xam ni jotaay boo bépp jotaay boo xam ni boo fa toogee doo fa dolliku ci sa wàllu adduna doo fa dolliku ci sa wàllu yàlla rek jotaay boobu suñ tuubaa mi ngi ñu koy wattandiku loo ñun ñi nga xam ni ay ndaw lañ ba tey it wax na ne eh, nun ñi nga xam ne ay ndaw lañ it nañuy taqoo nañuy taqoo di jaamu yàlla waaye taqoo koo xam ne day jaamu yàlla ngir mu ñuy wommat ci njubam googu mu nekk mooy nit ku baax daa war a wut àndandoo yu baax waaye koo xam ne boo ko gisee aw meloom rek buñ la waxul lu doon daanaka doo ko xam ndax ñu ngi ciy nettali ci ne euh, nit ki nuru nurulu loo doonul ci sëriñ bi wax nañ ne mas nañoo toog bam mu yàgg ab si ndax wadd fa wetam ñu ray ko bañ xoolee ndeke ab si ndax la ñu tegoon ko ab onk sëñ bi daan waaw nuru nurulu gi moo ko waral daan ne lu waaye di bañ ku la jaawaleeg moom bu ko nuru nur lu kon loolu lu mat a mat a xel la waaw sëñ Masaar kon nga yëkkatil nu xasida nu kiis na xii kon noonu ñu leen ko waxe woon rek sunu kilifa teew na ci jotaay bi di sunu sëriñ suñ bakki Abdourahman di ko jéggalu bu baax a baax a baax a baax di ñaan sunu boroom dolli ko tawfiq kon suñ bakke eh, noo ngi lay jéggalu bu baax di la siyaara bu baax noonu ñu ko waxe woon rek waxtu wi li ci dem xaw naa bari waaye kon liñ euh, fas yéene waxtaan ginnaaw jotaay bi njàngaleem Sëriñ Tuubaa al Abdul Xadim la tudd noonu ñu ko waxe woon kon ñu dugg ci ci lu gaaw rek mooy temu tay bi moo doonoon léggéey liggéey mooy lan dëgg-dëgg ci lislaam ak wàccuwaay bi mu am ci lislaam rawatina ci yoonu murid Sëriñ Tuubaa al Abdul Xadim nan la ko jàngalee nan la ci soññee waaye nan la ci yare woon kon sëñ bi bismillah aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين آه، سيدنا شعج رجف مغليني مبقي باي خليب آه، دي جغلو خينا وقت بي خوا جمتوتي يعني كون جاي خط خط رد للغي نيغنو مبقي يب دي لنسيارة tomb bi nga wax nak war ci waxtan tomb bu am na solo ci njàngaleem sëriñ bi mm-hmm. am na solo it ci dunduk àdduna mm-hmm. ndax daa bokk ci yiñ liggéeyaale nit mm-hmm. kon lu mat di fàttali nit ñi la waaye li tax mat wax mat waxtaane nag du du du liggéey yëpp baax du liggéey yéen yëpp baax kon am na liggéey yu ñu sant jullit am na liggéey yéen ko sant boo xam ne saabu génnee ca yooyu rek mm-hmm. liggéey bu du doon lu koy jariñ waaye lu koy loolu doon mm-hmm. kon moo tax ma jàpp ne lu am solo la mm-hmm. euh, bu ko defee liggéey nag euh, ab xaaj la ci biir lislaam nit ñi dañoo ñëw àdduna ngir ñetti yëf ngir xilaafatullah al waaye dañ fay ñëw ngir ibada wutu ko di ko jaamu dañ fay ñëw ngir al imaara mooy li ñuy wax dundal suuf loolu nag liggéey moo koy def yàlla dañoo bind daf ay njëriñ yu bari ci suuf wax ne dem leen ngeen jëli ko jariñoo ko jariña ji ci liggéey nag ci lañ mën a jote ci xéwal yooyu ci liggéey ci lañ ci mën a jariñoo ci lañ ci mën a jariñ kon mel na imaara gu alxuraan di santaane bu liggéey amul du mën a sotti kon ndigalu yàlla mi ñu indi ci kaw suuf la الإسلام جابيكو فرادا فرادا طلب الحلال واجب على كل مسلم فالوخي ينبي صلى الله عليه وسلم وتصفيق وحن طلبه فريدة معممة لكل مسلم وكل مسلم جانجلم آه، حديث الإسلام لرن لير الفوف سنو براميت وحن كلو مما في الأرض حلالا طيبا لكلين كلينة كسوف mooy lu dagan te teey lekk leen nag li muy tekki mooy dem leen wuti ko ba jot ci lekk ko kon ci lislaam dem liggéeyi ndigal lu ñu sant la loo xam ne ku ne na ko war bàyyi xel huwa alladi jaala lakum la dadalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi loolu it euh, lu mat bàyyi xel la euh, fal yanzur ayuha aska taaman it luy firndeel loolu la kon liggéey lu am solo ci islaam moo tax it ci biir njàngale sëriñ bu mag bi radiallahu anhu liggéey doon ci ab pàcc waa ni ñuy wax ne jaamu yàlla ak liggéey fekk liggéey sax ci jaamu yàlla la bokk ndax liggéey boo ko defee niñ ko war a defee liggéey la nga war a liggéeyee ak jaamu yàlla lay doon kanam suñu borom moo taxoon sëriñ bi wax ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslim bi xayri wahami wax ne laa yanfahu al ilmu wala al ibada bil akli lil xarami inda saada waxoon it saa bi aklihi yabdul huda wa wax nañu ne ñu xam-xam ak jaamu yàlla lu mu bari bari te àndut teg lekk lu lew du jariñ borom te liggéey bu tegu ci yoon nag mooy tax nit ki mën a lekk lu lew kon mel na ne liggéey lay santaane waaye liggéey bu tegu ci yoon ndax lan ngir mën a jaamu yàlla jaamu yàlla gu ñu nangu ndax lan ngir boo amee xam-xam xam-xam laa jëriñ wax ne na ngeen sàkk lu lew waxtu wu ne ndax ci lekk lu lew ci la ak njub di mën a amee moo di ne kon ndekete nit ki bu bu liggéeyul liggéey bu tegu ci yoon xanaa di dunde loo xam ne lewut su boobaa ak njub du ko da koy sori kon ngir nga jub faw ngay lekk lu lew ngir nga lekk lu lew faw ngay liggéey liggéey bu tegu yoon waaw ndax kuy laaj te waru laaj sax mm. daf bokk ci islam bi sare mm. islam maye na laaj mm. waaye day fekk ci ay xaalaat xaas yu nit di toll sene laaj bu loolu laaj te waroo laaj ci liggéey lu dëgëru ci la bokk loolu it jàpp moo tax la liggéey nag am na solo lool ndax ko santaane tagg nañ ay jaamam wa axaruuna yadribuuna fi l ardi yabtaxuuna min fadlillah loolu ñu baax ñu lislaam di tagg lañ am solo gi bokk na ci it mm-hmm. julli mooy ponk bi gën a màgg ci lislaam ginnaaw ñaari shahada yi mm-hmm. julli it julli àjjuma ci gën a rëy mm-hmm. waaye borom bi nee na fu ngeen sëlmale tasaaroo leen ci suuf si dem wuti lu ngeen am fa ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ardi wabtaxu min fadlillah wuti lu ngeen am kon dem leen bu ngeen sëlmee dem liggéey bu leen toog di kenn koy na bay boppam fenn loolu bokk na ci li tax sax fuqaha yi di wax ne ñàkk liggéey bisu ngir jublu ci dundal sunna dañ koy tere mm. nit ki nag sañ na koo def ngir noppul mm. waaye bu mu jàpp ne loolu day sunna <laughs> nit ki dañu bëgg ngay liggéey ba julli jot mm. nga dagg liggéey bi dem julli ji boo noppee delloo ci sa liggéey nit nag sañ naa tànn aju nekk ci su nopp lool waaye jàppee ko ni aju ma wari su ko liggéey dañ koy tere ndax fantasiro la fay daa kon mooy waxtu wa nit ki dawa du sonn boo nekk ci sa borom bala war sa diggante moom nga noppi demal nag ki aduna mm-hmm. liggey lu la jëriñ jëriñ sa njabot mm-hmm. kon amna na solo foofu loolu mm-hmm. bi ci def sit borom mo ñu santaane ñu infaq fi qawmin tayyibati way ma kasab li ngeen fagu tem dagan joxe len ci ngir yalla su ko defé da ngeen am tiyabu ci bare bare loolu day jëmmal am solo go xam liggey léegi am na ko solo laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum kon du bakkar ngeen dem liggey bakkar ngeen dem liggey donte liggey bi nak war sa dox diggante nit yàlla moo tax yàlla doon tàgg rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wala bay'un an dikrillah liggéey boo xam ne du dox sa diggante ak sa borom hmm. du tee fu jaamu yàlla jotee ngeen basi ko hmm. liggéey bu bokk na ci yi gën yóbbu hmm. islaam nee na doomu aadama lekkut aw ñam wu gën ñam wu mu fàggu ci loxoom ma akala ahadun taaman xayran min an yaakula min amali yadi waxam ne it yàlla daawut ci liggéey ci loxoom la doon dundee da doon liggéey di tëgg ñu di ko fay mu ciy dund wax ne yonent yëpp am nañu ne mm-hmm. ba ci wéyal si sàmm na bay na mm-hmm. yar na jur mm-hmm. wax ne atyabul kas bi amalu rajuli amalu rajuli bi yadi ak njaay mu tegu ci yoon kullu bayin mabrur nee na mboolem bi ñuy faggoo li nit ki liggéey ci loxoom lam cee jëlee moo gën a laab moo gën a dagan ak njaay mu tegu ci yoon xam ne naxe woo ca dafoo ca lu jaaduwul yooyu ay bunti fàggu la ci am njëriñ ci liggéey du xeebu hmm. na doon lu lislaam daganal rek hmm. moo tax ñu de salaam waxoon ne hmm. kenn ci yéen jël buum dem ci àll ba taxani lam ci am mu jaay ko dunde ko moo gën ci moom muy tàllal loxo nit ñi dañu yelwaan moo xam jox nañ ko moo xam joxuñ ko kon yelwaan ak laaj ku lott te tële am ngànt ma ko war ko war a def waaye nit am doole moo tax am na xadis bi wax ne ab sarax dëgganut ci borom kàttan laa taxillu sadaqa Euh, li xaniyin mm-hmm. mm-hmm. wala li di mirratin sawi mm-hmm. def ko am kàttan dara jotu ko ak ku woomal ñoo yem sarax leen dëggan ke daa am na ke daa war liggéey loolu day wane ne am na solo moom liggéey euh, pour leeral am solo gi li ci njëkk mooy jaamu yàlla la sëriñ bi daan wax liggéey ci jaamu yàlla bokk waaw ndax yàlla la ko sant boo ko defee ni ko war a defee mook bu julli jotee nga julli ñoo yem gis ngeen waa jooju fonkoon ay jullee ki naafi la ñi nit ñi di ko tagg ci kanam nit ay salaam mm-hmm. mu laaj leen ku koy dund ñu ne ko mel na mbokk mun leen mbokk maa ko gën mm-hmm. kon ne wane ne mm-hmm. eh, ci la bokk am solo gi mooy liggéey bu war nit ki lépp lu mu dafa wax ab liggéey la jëmmi yëngatu la lislaam bëgg donte njariñ sax lu teew du si judd waaye yar na bàyyi xel waaye foog ne njëriñ loo fekk loo fekk njëriñ loo du du du bu lislaam principe bu diine mooy na am njëriñ na ci nit jëriñ moo tax islam waxoon ne su xiin wi sàqi woon ñun la bis ba cee tukki nga yor ak njëmbat ci sa loxo boo ko mënee jëmbat balaa bis penc balaa adduna tukki gaawal jëmbat ko mm-hmm. day wane jëf la yàlla soxla mm-hmm. amaa mu meññeeg mu jëriñ loolu sa yoon ñëw ci mën naa bàyyi xel mm-hmm. kon nit ki bu jëf jotee na jëf ndax jëf lañ ko sant jëf lañ ko sant boo ko defee daf nga dee war dana tax yàlla bëgg nit ki ndax lan benn waaye bu yontu si moom nuyu loxo bi ñagas lool comme ni nga xam ne rek baykat yi xam loxo daa nangam ci mm-hmm. desaan daa wax ne haadihi yadun yuhibbuha Allah allahu akbar loxo yàlla bëgg mm-hmm. kon nit ki mm-hmm. ci loxoom boog njabootam sopp yàlla la jihaad la ci yoonu yàlla it nag waaw jihaad la ci yoonu yàlla euh, ndax bokk na ci yi ñu waxee jihaad mooy nit koo xam ne day sonn ngir njabootam kooku ci mi ngi jihaad suy faatoo dañ koy jàppe ko jihaad ci la ñuy nit mm-hmm. ci la ñuy xoole nit mm-hmm. warum lu xatab daana wax ne mm-hmm. danañ présenté nit mu jëmm ji kii ci man lool bu ma laajee métier gi ne un métier du teg fi man dara bokk na ci mag ñi doon natte nit ko un métier pour ñoom duñ duñ ko am solo ndax ku war a yëngu la te yëngu kon ku wàcc ay wartee fa mu dana taxit euh, say jëf rafet ndax boo liggéeyee liggéey bu tegu ci woon di dund ci lu lew mm-hmm. day tax topp yàlla yombul mm-hmm. waaye ki liggéeyut mm-hmm. mën na ko yóbbu ci lekk lu lewut lekk lu lewut day yóbbu ci mooy yàlla sëriñ bi noonu na man akalal xalaala ataa allaha ahab am kari wa man akalal xaraama asallaha am kari kon loolu it day wane liggéey lu am solo la lu am solo loo xam ne jullit bi da ko war a sóolaale mhm. ab jullit daa war a mécc mhm. te li ñu jàng ci histoire yoon weeg murit gi mhm. mooy ku ñàkk mécc amu ci woon daan faral di wax ne ñàkk mécc bi daa la ci yoonu sëriñ bi amul mag kenn koo xam ne buñ ko masaan laaj loolu liggéey du wax dara léegi nga gis rek koo xam ne boo ko laajoon lu muy liggéey du wax dara waaye mag ñi moom dañuy liggéey dañuy tool ñi dañuy sàmm ñi dañuy nangam ba kooku rek am na métier mu yor moo xam ne mooy seen liggéey waaye ku defut dara loolu moom yoon mu xamu ko daw yar na ci loolu dañ leen ko mag ñi seenum yare bokk na ci mm. ndaw romb leen nii rek yor loxo yi neen mm. dawuñ ko nangu mm. saa buñ ko defee daañu la woo sëf la loo boo lëggee dootoo dox yoxe ne <laughs> jamono yi ñu jàpp ne ya nga war na ci dara mm-hmm. ndax ak neen mm-hmm. loolu mm-hmm. dégg nga su ko defee nag euh, liggéey ay façon la yu bari la yu bare la waaye mën nañ ko tënk ci ñeent hmm. li ñu bari bari du génn ñeent yi ñeent bi ci jiitu te gën ci mooy mbay hmm. donte li ñu woyofal nañ ko doy dal ko hmm. ndax mbay la ci aju ci aw yiw li ñuy tuddee industrie lépp lu ñuy liggéey lu dul toole wala feneen ñu di ko soppi bañ mën koo jariñoo Sénégal du boo lépp usine yi li ñuy liggéey lépp Sénégal bi ci topp mooy yaxantu jaay jënd bi ci mujj mooy ijaara kuy hmm. liggéey ñu lay fay hmm. man dooleem lay day daan hmm. mën nañu wax ne métier yi génnul njëñ nit ko xam ne fonctionnaire yi ci ay ujara lañ seen doole la ñor seen xam-xam di ko liggéey ñu leen fay kon koo xam dañuy liggéey ñu lay fay loolu ajir nga ki nga xam ne nag day yaxantu kooku wuti métier boobu la mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñooy métier usine ya mm-hmm. ak ba ci ñi ne ci mbaarum wuute ma fa la tàmbalee mm-hmm. loolu lépp sinaa la jël ay dara dëkk bu nekk aw dal nga jaay ko ñu jël ay ay fekk luñ transformé ay luñ bay nga soppi ko ba mën ko jëriñoo yeneen jëriñoo yooyu yëpp xeetu mbay kon ñeenti xeeti métier yi mën nañoo wax a ñoo am mais moo mi moo gis rek mën nga ko delloo ci benn ci yooyu yëpp baax nag yëpp baax ay sart rek la am bi ci njëkk mooy na doon lu kuy bàyyi na bàyyi lu dagan <laughs> bàyyi yàmba mm-hmm. ak yu mel noonu dafa xaram mm-hmm. mm-hmm. ndax lépp loo xam ne mënees su koo jariñoo ci gan anam ci sariya kenn waru ko jënd kenn waru ko jaay kenn waru ko bàyyi kon ki bàyyi lu dagan waaye métier woo bàyyi loo xam ne dafa xaram dëggal doon it loo xam ne da lay jural lu araam jëmmi métier mën naa dagan waaye nag day jur lu xaram nga xam ne ku ko def aw nga def lu xaram loolu moo araamal métier yu bëri fii tey. Mm-hmm. ay musique mm-hmm. ay mm-hmm. ndax yooyu. mënut xëy na beru di bëree. ak tàggat yi jublu ci tàggat yaram dara nekk. mais ñi ngi ko def yëpp ànd na ko ànd naa ko njabar. ànd naag futti ko def yaramu neen. ànd naag faa doxtu yàlla. kon day jur lu xaraam. day daal di araam ngir loolu. bu mu doon loo xam day jaxasoo lu araam ku mu métti lu mel noonu. Mm-hmm. loo xam ne faaw boo ko defee def lu xaraam. def <laughs> mm-hmm. ci jaay yoo xam ne mi barab mm-hmm. jaay la faaw nga jaay lu xaraam. ndax ñoom ay la ay supermarché yu mag yoo xam lépp lay jaay. ku fa nekk di liggéey faaw nga jaay lépp. duñ nangu nga beroo di jaay lu lew yem. loolu it lislaam xamu bu mu dox sa digganteeg warteef. kon mépp moo xam ne. moom ci boo xam dagan na. Hmm? te du lu yóbbu ci lu xaraam mm-hmm. jaxasoo wut lu xaraam mm-hmm. doxut sa digganteeg say warteef mm-hmm. may ci mu dagan waaw nit ki sañ na ko liggéey di ci jaamu yàlla di ci dundal njabootam ci amit mën naa lekk ndax li tax liggéey bu am baax tegu ci yoon am njariñ mooy lañ koy fàggoo ab liggéey bu teguwu ci yoon la ci boroom di jëlee du dagan ci moom maanaam ci misaal jaay dañuy tere jaay loo xam ne ab jullit mënu ko jariñoo jaay sàngara ci la bokk dégg nga mhm. jaay mees yi ñu jaay ci la mhm. bokk mhm. ndax amul genn anam buñ ko mën a jëriñoo ci ñu ñi jaay ay billet loterie nationale carte dafa xaraam kon bépp jumtuwaay buñ ko def dafa xaraam yooyu noonu jaay ko dafa xaraam dégg ba jeex ci la bokk xaraam parce que kenn kenn wutu ko jëriñoo kon day day aram ci nit ki lu aram nag boo ko lànkee jaay ko xaalis bañ ci am lekk ko dëgënu ci kon ci lorom loolu am nga bakkaar ci def nga lu ñu la tere mm-hmm. te alal jën ci jële boo ko lekkee yàlla bind la bakkaar mm-hmm. Mm-hmm. loolu it dafa bàyyi xel loolu comme ça boo xamee ne nit ki jaay ak jënd na sóoraal li muy def lu mu doon ndax lan ngir lam cee jëlee mën a a mën a dagal sinon day day day def dara waroon caa am tiyaaba far am ci bakkaar loolu jàpp naa ne jar na euh, ñu bàyyi ko xel baax a baax ci suñuy jëflante ci jaay ak jënd ndax nit ñi euh, dëgg la am nañ bëgg nañ lu baax. Mm-hmm. waaye ñàkk xam. ñàkk xam day dugal ci wallaahi. Mm-hmm. moo tax mm-hmm. mbooleem xeeti métier yi nga xam ne. nit a ngi koy métier li ñu war a njëkk a seet. mooy jullit bi mooy ndax li dagan woo dagan. nag suñu jafe-jafe bokk na ci. ki war a liggéey. xamul dagaan ak dagaan. <laughs> moom dana naa liggéey rek la. liggéey rek saa bu xëyee daal nañ ko a liggéey moo tax nga dégg léeg-léeg ku lay wax naa la. dañ koo jël. muy sàmm ay mbaam xoox ak nangu. Mm-hmm. loolu dëggalul ci mm-hmm. Mm-hmm. ab jullit. dañ koy tere liggéey ci lépp loo xam ne. ak doyadeema. wala luy encouragé ak mbon la luy tere mbaam xoox dañ ko tere ñëpp. dégg gis ñoo xam ne dañ leen di liggéeyloo ci garder ay baar. baar dafa xaram. kon dimbule ña fay ne bañ mën faa ne ci seen jàmm. dimbalante ci bàkkar la. wala taxawanu. wala li ci mu lu war wax. yu mel noonu yëpp tamit kon buñ lay garloo buñ lay garloo gëstu foofu la nga kër goo xam la ngir ngir ñu bon ñoo fee daje def caaxaan nga ne ci buntu boobu di leen aar yaa ngi ko kon mépp métier daal nit a a ne am na anam yu ci dagan yu dagan daa faral di wax ne jaay ak tey képp ku ci dugg fardu kifaaya la ci yow mhm. fardu ayn la ci yow sax mhm. yow mi xas tànn jaay jënd mhm. nga dem jàng buntu jaay ci sariya wala nga taxoo ko xam lépp opération bu bees bu ñëw nga laaj ba xam bii day wala dëgg ndax toujours nga gis ay jëflante yoo xam ne daganut ci te ñu ngi koy jaayee ko jënd te loolu li muy jur mooy xalaal julliwut alal ji léwut amul njëriñ ndax yow lu mu bari bari mënoo cee saraxe mënoo cee def lu baax ngir mucc ci mooy lan tàggoo ak moom te tàggoo gi doo ci am tiyaaba xanaa tiyaabay ñàkk a lekk loolu waaye ba mënoo ko saraxe ko maye ndax mënoo loolu it jàpp naa ne euh, lu mat a sóoraale ci sunuy jaay ak jënd la bokk euh, sëñ xaar su ko defee nag nit ki su nangoo liggéey liggéey bu tegu ci yoon am na njëriñ ndax lan daf nga lu yàlla sant te def lu yàlla sant dana tax am ngërëmul yàlla mm-hmm. te yàlla santaane liggéey mm-hmm. yàlla santaane ñu liggéey mm-hmm. kon nag képp ku yëngu ci liggéey war na ko fonk jox ko àqam bàyyi xelit ne liggéey ak am nag ñaari mbir lañ bàyyi xel lool buñ ko mukk ne maa ngi liggéey dama war a am jaam bi moom dañ koo sant mu sabablu waaye sottal borom bee ko kenn ku ne ci noonu wërsëgam yàlla bind na ko noppi noppi du faatu te jotu waaye daa waxoon nag na rafetal leen wutiin wi mm. ittaqullaha wa ajmilu fi talab mm. la waxoon fa inna nafsan lan tamuut xatta mm. tastakmila risqaha bakkan du faatu te jotut wërsëgam ak jeex tak kon bàyyi leen xel yàlla hmm? te rafetal li ngeen di rafetal wutiin nag mooy kon képp kuy liggéey na sàmmoon teeg ne moom julit la jullit du lu jot liggéey mm-hmm. du nu ko neex liggéey. Mm-hmm. Mm-hmm. am na liggéey yoo xam ne. du liggéey jullit. lépp loo xam ne day woote ci mbon. wala muy dëgëral ak mbon. wala muy aaru mbon. liggéey bu baaxul la ci jullit. ak tënk la xam ne. lépp loo xam ne rek day jàppale mbon wala mu di ko sàmm di ci liggéey. déedéet. liggéey boo xam ne it dagan na ba noppi it naxaate am ca wala lekk al jàmbur ciy neen mhm. boobu liggéey bi baaxul mhm. moo tax ñiy yëngu ci wàllu googu it buñ mhm. na loolu ci àll bi ñu bay anam yu ñuy bayante dañ koy tere ci islam bokk ca nit ñëw yor aw jiwoom nga luyee ko suuf bàyyi ba noppi am ca nangam pourcent yóbbu la jox <laughs> suuf dee su ko luyee lu cay meññ man ko lay xaalis mm-hmm. lu nekk waaye risque la ci mel kon mel noonu yëpp nit dañ ko war di xam ko war a xam di ko moytu mm-hmm. seeni liggéey mm-hmm. ngir liggéey mën a barkeel ngir liggéey mën a bi ci desit liggéey it ñu xam ne bu yàlla di baaxee nit mu liggéey ba am aqi alal daa am na ko bàyyi xel agakanki dundal sa sa bopp ak sa njaboot am na ñoo xam ne da leen war a dundal am ñoo xam dañoo sopp nga dundal leen ak nag dimbali néew ji doole nga xam ne euh, loolu it jàpp naa ne jullit war na ko bàyyi xel mhm. bari na lool ay nit ñu am alal bañ di leen soow ñu jékki-jékki alal ja naax saay mhm. bokk na ci la ko waral ak yàlla ji ci nekk te génne wuñ mm. bokk na ci asaka mhm. bari asaka duñ ko génne am ñoo xam ne danañ ko génne waaye dañ ko génne yi baaxul loolu loolu it am njëriñ kon ku góorgóorlu bu amit sàmmal ak yàlla mi mbooloo mu bari daje nga bokk ci ñu mu tànn jox leen xewal te du sa ngóor a du sa nàngam mukk hmm. waaw yàlla mooy tànn rek hmm. ndax bari na ñi gën a sonn ci liggéey booy seet day mel ne ñoo gën a hmm. am ak liggéey mën ko sax bokkul am liggéey sabablu la yàlla muy maye <laughs> kon ku am moom war naa góorgóorlu bàyyi xel loolu bi ci des it bokk na ci njariñam sukkandiku ci sa bopp la ginnaaw yàlla dan la mayit nga mën a soppax ndiku ci liberté gis ne nit ki nga xam ne liggéeyu sëñ mag bi rek dal bokk na ci li ma waxoon santaane dem leen liggéey mm-hmm. te teg ko ci yoon mm-hmm. ndax damaa bëgg bu ëllëgee mm-hmm. ngeen mën a sàmm seen gor ndax lan ku leen mën a sañal leen wolof ne ku ëmb sa sangal ëmb sa kerte nit ñi dañuy def lu bëgg su def ndax lan ay suruuf ay condition bokk jugal mm-hmm. mm-hmm. ñu mm-hmm. ni ma ni ma mel bu leen ma ko jàppee man ma jàpp waaye nii ma mel ni melu ma ni mooy moom am na lu muy def leen dinoo xam su jekkoon du mel noonu déedéet déedéet déedéet <laughs> mel ne ku góorgóorlu ci am dana tax yow nga mën a sàmm sa saraf sàmm sa diine ndax léeg-léeg gis koo xam dañ ko def loolu loo xam ne diine da koy bañ ngor di ko bañ waaye bëgg a dund taxaram di ko def kon liggéey bu tegu ci yoon loo ci mën a am suturloo ko. Mhm. dana dox diggante nit ki. Mhm. ak ñu koy def loolu defu mhm. kon kenn du ëmb sax du ëmb sax kenn ba muy di ko xool la fu mu bëgg a xool. ëmb ba nga xam ne bu nekkoon kaay mooy yàlla yi. mu ne moom daal amee na ma loo xam ne ruus naa ruus ruus na xat ndigal ak te ruus te xat ndigal yàlla mi leen boole ma. loolu jàpp naa ne mën naa bàyyi xel. bu ci des am na njëriñ moom liggéey ndax lan. daana tax nga mën a bokk ci. ñuy jàppale diine hmm. lislaam daa bari loolu ay procès ñu hmm. jëm ba tey hmm. a jëkk ca yoonu yëpp ay islam ba ci Sëriñ Tuubaa ay procès yu te am na boroomi alal yoo xam ne yéeg nañu ba ca kaw ay daraja seen alal lañ ko may démb Seydina Osmaan ci la woon yor na alal ju bari fu lislaam soxlaa mu jox ñu jox fu lislaam soxlaa mu jox ba benn bis ibnu salaam xëy na ne maa darra Osmaana maa amila baadal yow loolu mooy mbayaat loolu mu gis ni ki tey Ousmane mënatut a def lu ko wàññi tax allahu akbar loolu rëy la loolu liggéey ko may liggéey ko may mm-hmm, mm-hmm. ndax am ci alal mm-hmm. lislaam soxla muy tax parce que gis nañ ne am na njariñ dana man sax yow porcé lislaam yi te loolu it lu am solo la si Cheikh ndax bàyyil xel ne e, nit dafal yàlla lu baax dara tuutiwu ci tam daa waxoon ne ku tabaxal yàlla néeg bu toll ne tàggum picc yàlla tabaxal ko pale ci aljan borom xam-xam wax ne tàggum picc moom jàkk mënta tuuti ba toll noonu. <laughs> waaye waxin la ci ku participer ci jàkk la toll noonu. <laughs> waaye loolu la muy tuuti tuuti saakub ciment. <laughs> ku defut dara fu muy jëlee saakub ciment. wax dëgg yàlla. faaw ni ki am dara. bu ko defee bu lislaam soxla mën a joxe. ci misaal yoonu murit. dañ maa ngi tabax wallaahi projet bi mos taxaw ci yoon yi dafa tabax suñu taxaw nga woote université bu rëy muy loo xam ndamul ndamul adduna def loolu nag ku defut dara ba defoo ci dara dëgg yàlla bu sottee da nga am gerte moo tax yooyu am na njëriñ ngir mën a musaahama ci projet l'islam bi mën a sàmm diine sa ngor waaye mën a jàppale say mbokk te sëñ bi nee na njaboot gi mm-hmm. ay yoon a ngi ci bari yu jëmee ci yàlla mm. bi ci gën a jege mooy nga sonn ci mu leen dundal allahu akbar ndax ba sa njaboot rek mm-hmm. du duñ aajowoo dara da mm-hmm. rek fi ni yiw la mm-hmm. di ba nga xam ne sa njaboot duñ wër laaj ci mbedd mi nit ñi képp koo xam ne aajo yóbbu na la ci mbedd mi nit mën na la gëf jëriñ kon yu ndaw ñu ngi leen di sacrifié ci yu kenn xamul ndax néew doole bu néew doole ba génn ci waaye boo fexee ba sa njaboot yaa ngi góorgóorlu ba am dara sa njaboot toog di jàng dañ kenn kenn di gému fenn loolu rek yiw la il faut ta bàyyi xel ngir loolu man mm-hmm, mm-hmm. na bàyyi xel ngir mm-hmm. day tax sab yool yokk ndax da nga fi bàyyi sadaxa jaar yi am na mag ñoo xam ne bañ faatoor kenn xuur bàyyi nañ fi yiw woo xam ne ku juddu jariñu ji muy yiwuru jeex te loolu ngir nga xam soloom bàyyil xel li sëriñ bi waxoon ne bàmmeel ku fa dugg maw mbaa nga fuuyu allahu akbar bàmmeel ku fa dugg maw mbaa nga fuuyu fuuyu mooy lan nga yor lul jeex mm-hmm. waaye foofu maye amu fa saraxe amu fa mm-hmm. lu mu bëri bëri mm-hmm. da ngay moom benn allahu akbar loolu taxaw ku fuuyu bu dara bàyyi woo fi kenn ku lay defal dara ni mbët yi def bu nooree noo ngi xel loolu wal xayma taxaw ñaar yooyu nag nga dal ay xel kon ki fi bàyyi sadaqa jaariya boo xam yiw la nga liggéey ba bàyyi fi dara moo tax naa bàyyi loo xel mbokk yi yàlla dafa nañ fexe bala ñoo faatu. Mm-hmm. am waqf. bu ñu bàyyi. moo mm-hmm. xam kër gooy defar. Mm-hmm. muy taxawu jàkk yi wala daare alxuraan yi wala yu baax yi. nga xam daal day doon yiwu fi def. mën ngaa faat téeméeri at. junni at mu ne fi. doon yiwu dalu ko. kon mooy ku ku faat tey dund. ndax aw yiwam ma ngi doole. loolu it alal dana ko maye. dana baral tuyaaba. dana tax sawtu des fi. kon loolu lépp jar na baax ngir lool. ba ci des it dana tax jàmm am. li ëpp ci. ñàkk sécurité gi. Mm-hmm. ak ak ñàkk ko waral. ñàkk <laughs> ñàkk gi lépp li ko waral. Mm-hmm. ñu mën a liggéey. te liggéey war a liggéey te liggéey. <laughs> allahu akbar ba bëgg a dund. siif alal jàmbur yi bëccëg. di ko sàcc guddi. allahu akbar ñooñu bu ñu wuti woon dara ba am ci. wax dëgg nga xam ne sàcc neexul. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla wax waxtu woon ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi euh, kii sa dund ci dansé. wallaahi wallaahi këru jàmbur ko dugg xamulum lu mu fanaanoo. loolu ñàkk eh, xam nañ eh, amul njëriñ moo tax loolu it jàpp naa ne eh, lu lu lu mat a sol li ci des it mooy mm-hmm. daa tax fegu mm-hmm. ñi tàllal loxo nii mm-hmm. jàpp naa ne gën a lu leen bu dee ku yàlla nattoo ak wéradi mënta liggéey amul ku ko taxaw ko sañ naay waaye ku dara jotul moom wërta yàlla ndax salaam noonu na ñaari loxo saa bu ñu weesoloo ba féete kaw gën ba ci sol nga féete kaw moo gën ba ci suuf kon kii joxe moo gën moo kii laaj loolu dafa am solo yooyu daal lenn la ci ñu doon tënk sëñ Cheikh nga xam ne lu mat a bàyyi xel la liggéey daal du rëy la jaamu yàlla gu am solo la lu sëriñ bi fonkoon la sëriñ mësta nangu nit ku def yi neen wax na ne loxoy neen ak sànq dund day lore waxen moom nee na képp koo xam ne yooyu la gën a raax loxoy neen du jëriñu mukk fadaatan waraxatan lan yusira mhm. shaxsan arada an yakuna musira mhm. koom jooju mën naa doon koomum diine mhm. mën naa doon koomum àllaxira ku bëggub cër ci yàlla wala bëgg koom ci àdduna noofulaay ak loxo yi neen du doon sa mbir kon ñàkk métier bidaa la ci sunu yoon ñëpp dañoo yoroon métier bi di jariñu di jariñ bi ci des it nag fas yéene bokk ci ñi jariñe moo gën fas yéene fu ñi jariñe rek <laughs> mën naa ko ndax yàlla kum tëj di buntam wallaahi fexeel di bokk ñu muy a ci ñoom di jëriñ ñi moo nga jàpp ne la war a jëriñ mm-hmm. ginnaaw yàlla bind na la noo xam ne amoo ngànt mm-hmm. te mën liggéey mm-hmm. te it nag sabab la boo xasee daf lay la war sa jaan wàcc leen ci loxo yàlla te it sa ci liñ bëggoon lu mat a bàyyi xel loo xam ne eh, jàpp nañ waxtu wu ne nit ñi di ci soññee. Mm-hmm. jamono ñu toll jamono mbay la. naa ci jiw tuuti. Mm-hmm. muy ne mbay. Mm-hmm. toll na jamonoom. kilifa yi daan nañ faral di soññee ci loolu. métti yëpp mbay ci gën. xëy na nag moo ci gën a métti. xëy na moo ci gën a néew. rendement fii. fii ne boo demee tool yi ku jëkk xam ko ñoom. am États-Unis d'Amérique. ñi fa ëpp doole ay béykat ay béykat lañ. fii rek la xew béykat. ndax na joxuñ ko àqam. nit ñi fi nekk it mm-hmm. amuñu moyens yu bu mm-hmm. bu buñ buñ buñ gënoon a soññ état mm-hmm. it bu gënoon a góorgóorlu ci fexe ba nit ñi dellu ci tool yi wax nañ ne sëñ Saliou Mbacké daan na ko wax nee na man politique kat bu ñëw ci man bu waxtaanee moom rek moo xam ne xamul defar réew mi ki defar réew mi mooy day fexe ba àll bi toog ci àll bi di liggéey allahu akbar ci la xam réew bi tam ñu dëkk ci bi toog ci liggéey ubbi nga yoonu jariñu léegi saa boo xeebee àll bi fexe ba amatul solo ni ñëpp day rankaloo ci taax yi jikko yi yàqu koom-koom bi dellu ginnaaw mhm. dara du <laughs> xam nga nit ñi ci àll bi niñ féexee mhm. niñ baaxee bi mhm. taax amee ñu bari dañoo soppi dañoo soppi ko taax kenn du ko yaatu ndax gan gu la ñuy ñëw da nga njëkk xaar fu ñu fanaan <laughs> àll nag amul loolu déedéet waxtu am nañ néeg waxtu ne ñoo ngi ci sàq waxtu ne ñoo ngi ci tool kër waxa ne saa bu fa gën dëkki am na lu xew loolu bu ci barke bi bi ci des it ko defee tool ñaata mala mhm. ñooy jëriñu ci mbay bi ci ay picc mhm. ci ay gunóor mhm. ci ay sax te salaam ne loolu lépp lu ca lekk sarax lay doon sarax lay doon te xam ne yiwuru jeex na wi ne ku baloon ba noppi sax am ngooñ kese boobu jàpp ne perte na déedéet pour perte maa nekk ren perte amul foofu loolu it lu am solo la kon kilifa yi di ci woote ku ku am ku am man-man def ko na nga ko fonk adduna réew yi dox yëpp it mbay la jëm ndax baasu dund mbay la bas bii ñuy dund ci àdduna mm-hmm. Mm-hmm. mbay la mm-hmm. kon nag buñ ko sàgganee rek mooy sàggan nañ suñ borom ma sha allahu barakallahu fiikum ahsanallahu ilaykum bi barakati borom tuuba alabdil xadim jërëjëf eh, sëñ Mbàkke ci eh, jotaay bu màgg bu rëy bu am solo bii waxtu wax dëgg yàlla waxtu yi xat na loolu waaye lépp leeral nga ko macha allah yal na yàlla yéem te gën a dolli te fay leen yiw wu rëy jéegooy dem geeg dëkk gi yàlla saa boroom defal leen ci lu kawe seen jot bi barakati borom Touba al Abdul Xadim waxtu bi daa jeex takk takk moo tax xam naa mbokk yi maa ngi gis ñu bari seeni commentaire ki def yow waaye xanaa ñu jox la nga tàggatoo ci jotaay bi di ñaan bu mënee nekk bu soobee yàlla jotaay yu mel nii danañ ko fas yéene di seq ak yéen incha allahu ndax lii dafa riis lool ba daanaka maa ngi gis mbokk yu bari am ci sama kii bi laaj yi ñu may yónnee waaye dafa xat moo tax kon nga tàggatoo bu ko defee ñu kii incha allah. waaw kay xanaa di leen nuyu yéen itam <laughs> am na solo kenn ku defa nga ne. nga japp ci liggéeyub sëriñ bi mm-hmm, mm-hmm. liggéeyub sëriñ bi jàng la yaral la fexe ba nit ñi mm-hmm. xam lañu war a xam mel nañu war a mel di def liñu war a def suñ ko defee li ñu war a am danañ ko am kon nag ku ci góorgóorlu ñaan su moom dëgëral leen bareel seeni i di siyaare mbokk na ci rajo bi yëpp di ñiy déglu ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmmeet naka la xel ko ñaanal ñu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin kon mbokk yu baax yi li moy jotaay yi nga xamne mom lañ di fasiyene cheikh seq yéen alxames ju jot tay ñu dalaloon ci sunu kilifa suñ mbakki abdourahman di sakku yeen bokk yi koy deglu yeen ñepp ngeen ñaanalal nuko sunu borom dolli ko tawfiq ta dolli ko ndax mom bokk na ci ñi nga xam nima koy waxe fa señ tuba bëgg ku fa ne fa la ne ndax ci jang jang la rek rek la ne kon lii moo doonoon jotaay bi ñu sekkon ko ak sëñ Mbàkke Abdourahman ma ngi sakku baax ci yeen ñaan ta di leen ko defal ngeen ñaan sunu borom دفعل جبت سخل من جتمين وقرم الشين تبانين وبوليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر